asalaamaaleykum dal leen ak jàmm li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi tey jilee dañu koy door ak waa sit Sud Quotidien mu waxtaane ñu jeexital yu bon yi nga xam ne moom la mbas mi am jëmale ci wàllu hôtel yi l'activité bi ci boppam la dakkal bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication wàllu l'hôtel yi ak lépp lu ni xeetoo ab tekk-tekkaaral daal lañu fa nemmeeku donte nag kilifa yi jëloon nañu bépp matukaay ngir jàppale ñooñu lee rawatina nag ngir xëy yi nga xam ne ñoo fa am mbañ a sànku suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba di ñu xamal ne donte ubbi nañu waat frontière yi jëm ci jaww ji ginnaaw ñeenti weer yi nga xam ne dañu ko tëjoon loolu yëpp ndax mbas mi la nag li ñu nemmeeku daal mooy hôtel yi nekk ci Sénégal ñu ngi jooy ay clients ci ndakaaru naam sax l'activité yi dooraan nañu wante melul na mu doon mel mbuur moom hôtel yeeg restaurant yi ci ay jafe-jafe yu tar la ñu ne li ni mel it la ñu nemmeeku ca ci gi ca ndar géej nag moom hôtel yu bëri tëj seen buntu la ñu def benn yoon teg ci ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee ñu yóbbu leen ci lii ñu duppee chomage technique liggéeykat yooyu xamatuñu fi mu toll nii fan la ñuy teg seen tànk ndax jaaxle jaaxle it askan nu nekkee ci Sénégal def nañ ko li ko waral nag mooy mbas mi nga xam ne mi ngi wéy di law ci sunu réew tribune ni mbas mile gañe nañu bu baax a baax ci firnde démb rek ci alxamis bi téeméeri malade yu yees yu toftalu juróom fukk ak ñett la ñu siiwal téeméer yeeg juróom benn yi nag bawoo ci li ñu duppee transmission communautaire di wàllante sunu biir te xamuñu fa mu bawoo juróom fukk ya ña ngi ko nemmeeku ci commune bu Kolda suñu naataango yi di diñu xamal ne donte nguur gi jël na ci ay mesures yu tar ngir xeex bi le mbas moom daal mi ngi wéy di law di tukki ni ko neexee ci biir réew mi law bu gaaw Covid 19 bi di law suñu réew bu ñu moyul daal danañu delloo ci lii ñu duppee confinement du samay kàddu waaye kàddu ki nga xam ne mooy directeur des établissements de santé di Ousmane Dia nee na bu ñu moyul sax dañoo jëm ci beneen couvre-feu law bu gaaw bi nga xam ne moom la mbas mi di law rawatina cas communautaire yi soxal na it waa 24 heures ñu ñuy xamal ne ci ñaari fan ci weeru mars ba tey jii junniy malaat la ñu jot a am dakaar nag jël raw gàddu gi ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci diiru ñeenti fan Ziguinchor it seen xel it dalul ndax fanweeri malaat ak juróom-ñeent la ñu fa nemmeeku ci diggante altine jàpp alxamis ci diir boobu it ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñuy nemmeeku diggante Thiès Bignona Kolda. ak Tambacounda muy juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent nit weeru ut bi dooree ba tey looloo tax kuréel gi di coalition pour la santé et l'action sociale ñu ngi soññ nguur gi daal ñu xoolaat bu baax a baax seen doxalin jëmale ci wàllu mbas mi ñu des ba tey ci wàllu l'hôpital yi ak les échos jox kàddu ñaari spécialiste yoo xam ne dañuy àddu jëmale ci tekki ndombo tànku président conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm ñoom sax dañoo far ak moom docteur Mamadou Diouf nga xam ne daa xarañ lool ci wàllu réanimation di li tax bu docteur Pape Touré tekki ndomba tànkam lu tegu la ci wàllu wér-gu-yaram te kenn mënu ko weddi hôpital dalal jàmm daal li ñu ko war a méngale daal mooy dispensaire bu mag ñu jàll ci leneen mooy accident yi nga xam ne du jug ti am ci tali yi rawatina nag ñàkk ay charte yu leer a leer jëmale ci wàll pneu yi moo tax it laas di ñu xamale yooyu yëpp na ñu ngi def ay jéeya ci suñu réew suñu naataango yi di ñu fàttali ne at bu ne juróom benn téeméeri doomi aadama ñooy ñàkk seen bakkan ci tali yi ñu xamal ne ñu ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk kaaraange yoon bi nag ñu ngi xamal ne sax naam vitesse ku bëri ak yenn ci ay jalgati mooy tax yooyu le accident wante nag pneu yi am nañ ci wàll bu yaa Senelec fi mu toll nii nag ci ay jafe-jafe la ne bu ñu sukkandikoo ci libération mooy kontam bi nga xam ne moo nekk ci Ecobank fi mu toll nii moom la ñu bloqué avocat yi nga xam ne ñooy layal waa Senelec nag di artu di xam le ne bu bile blocage wéyee nag mën na indi ay jafe-jafe ci ni ñuy séddalee courant bi te loolu nag mën na indi ay émeute maanaam ay yëngu-yëngal suñu réew naka nañu ko amee woon ci at yu ñu génn libération di ñu fàttali ne audience bi war a am ci diggante Senelec ak Akilee ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ut bi ñu ne Akilee deltuwul benn yoon mi ngi ci xeex gi teg ci it ne nañu ko jox benn milliard ci suñuy koppar mu nekk ab ndàmpaay ñu wax ba tey ci wàllu koom ak wàllu soleil di dellusi si ci xayma bi nga xam ne moom la waa banque mondiale doon amal sunu réew rawatina lépp lu jëm ci wàllu politique ak kuréel yi nga xam ne moo am ci l'Afrique sunu réew nag ci fanweeri réew ak juróom moo nekk ci ñetteelu place ba waa soleil di ñu xamal ne ci téeméer boo jël li ñu am néew na ñeent Sénégal nekk ci gannaaw Rwanda bi nga xam ne ñetti at a ngi daal moo jël raw gàddu bi ñu jugee ci wàllu koom ñu wax ci wàllu politique ak waa laas di ñu xamal ne dialogue politique bi nga xam ne dañu ko dakkaloon danañu ko dooraat ndax Famara Sagna ak i ñooñam ci loolu la ñuy liggéey ci jamono jëlee suñu naataangoo yi ne ñaxtu yi nga xam ne moom la acteurs yi yëngu ci wàllu dialogue politique bi doon amal dugg na ci nopp ya ma waroon a dugg ndax Famara Ibrahima Sagna ak équipe am fi mu toll nii daal ñi ngi def seen kéem kattan ngir waxtaan yooyu la jëmale ci dialogue national beeg politique bi mën a dooraat laas ne bu ñu moyil sax mën na dooraat fileek ñaari fan lii quotidien di ñu waxtaane projet de loi bi nga xam ne dafa jëm ci tolluwaayu artistes yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu caada si mim réew boobule projet de loi daal dafa mel ne ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbir mi gëmuñu benn yoon ndax nguur gi dana sottal liggéey bi donte nag am nañ ci yaakaar gu mag a mag Soleil nag moom du loolu la wax Soleil ne ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu caada ñoom fi mu toll nii ab kontante lañ ci jëlee li xew fa fële ci Côte d'Ivoire it soxal na bu baax a baax ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñetteelu mandat bi Alassane Dramane Ouattara di président ba bëgg am foofu la nag indi na fa ay jafe-jafe ndax démb amoon na fa ay manifester yu taratar waa 24 heures di ñu ko yeegee tribune di ñu xamal ne fitna yeewuwaat na ca Côte d'Ivoire ci manifester yooyu sax am na ay doomi aadama yoo xam ne ñàq nañ ci seen bakkan loolu yóbbee suñu naataangoo yi Les Échos di ne ci Afrique sowu jant bi ñu féetee nag moom ñaari mbir ñoo ko yëngal ci jamono jile benn terrorisme ba ca des jëm ci wàllu coowalu ñetteelu mandat ñu jeexale kook wàllu tàggat yaram door ko ak stade stade di ñu waxtaane tey jilee match bu am solo bi nga xam ne ab classique la ci diggante Barça ak Bayern bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon ñooñu Messi yi dañoo fas yéene jàkkaarloo ba mu saf ak Lewandowski ak i ñoñam Vidal moom di xam le na tey jii daal dafa nar a jàkkaarloo équipe bi nga xam ne moo gën a xarañ ci àdduna wërngal këpp du jeexale koog waa sunu lomb ak kàddu yi nga xam ne kii fi doon ab mbër yëkkati di mbay Samb jëmale ko ci komba Gris Bordeaux ak Balla Gaye bile komba daal mun nañu ko duppee komba du siècle maanaam komba bi gën a fës ci xarnu bi ñu ne mbay Samb yemu ca nee na bu dee combat bi ci diggante Gris Bordeaux ak Balla dafa nar naka seen jàkkaarloo bu njëkk nag lenn mu mu wër na ab jéel la dana ca am lii moo gënoon fës ci ëttu kaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Impact de la Covid-19 sur le secteur de l'hôtellerie, l'activité au point mort, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que c'est encore le calme plat dans le secteur, malgré l'appui des autorités étatiques, avec la mise en place du fonds de roulement pour permettre à l'industrie hôtelière de survivre et de préserver les emplois. Le confrère de l'avenue Bourguiba renseigne que malgré l'ouverture des frontières aériennes du Sénégal après quatre mois de fermeture, pour cause de la pandémie Covid-19, les hôtels du pays sont toujours en mal de clientèle. Dakar se signale avec une reprise timide des activités alors qu'Hambourg, hôtels et restaurants sont dans le creux de la vague. L'hôtellerie est en léthargie à Ziguinchor, tandis qu'à Saint-Louis, plusieurs réceptifs hôteliers ont fermé et des employés sont en chômage technique. Les travailleurs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Les Sénégalais également ne savent voilà de Covid-19. Tribune l'assimile à de l'impuissance. Avec la démultiplication des contaminations, 153 cas positifs, dont 106 cas communautaires, ont été recensés hier jeudi et 50 cas de Covid-19 signalés dans la commune de Kolda. Malgré les mesures prises, le virus voyage et se propage. Avec ce niveau incontrôlable de la propagation de la Covid-19, il y a des risques de reconfinement. Un autre couvre-feu n'est pas à écarter, selon le directeur des établissements de santé Traoré, Ousmane Dia. La fièvre des cas communautaires intéresse également 24 heures. Plus de 1000 cas depuis le 2 mars 2020. Dakar est en tête avec 332 cas en 4 jours. Le confrère informe que Ziguinchor frissonne avec 38 cas communautaires révélés entre lundi et jeudi 29 sont identifiés dans la même période entre Thiès, Bignona, Kolda et Tambacounda, 929 depuis le début du mois d'août. Raison pour laquelle la Coalition pour la santé et l'action sociale appelle les autorités à revoir fondamentalement leur mode actuel de gestion de la pandémie. Restons dans les couloirs des hôpitaux avec les échos. Deux spécialistes prennent la défense du président du conseil d'administration démissionnaire. L'hôpital Dalal Jamm est un grand dispensaire, confrères. Les raisons qu'il a évoquées sur le plan médical sont indiscutables, selon docteur Mamoudou Diouf, spécialiste en réanimation. Recrudescence des accidents de la route, absence de réglementation sur les pneus, la bombe pneumatique, titre l'AS. Les routes sénégalaises tuent environ 600 personnes par an. Si dans plusieurs cas, l'excès de vitesse ou la négligence sont évoqués, les responsables de la sécurité routière sont d'avis que d'autres facteurs, comme les défauts pneumatiques, peuvent être la source Sénélec titre Libération son compte logé à Ecobank est bloqué pour une créance de 2,6 milliards de francs CFA un blocage prolongé risque de conduire à une rupture de la fourniture d'énergie et conséquemment entraîner des émeutes telles que le Sénégal en avait connu écrivent les avocats de la Sénélec Libération rappelle que l'audience est prévue le 24 août Akili attaque encore et réclame un milliard pour des dédommagements parlons toujours économie avec des institutions en Afrique de la Banque mondiale, le Sénégal et troisième sur 39 pays. Le rapport jauge la capacité à soutenir une croissance durable et à réduire la pauvreté. Avec un taux de 3,7%, le Sénégal est devancé par le Rwanda, premier pour la troisième fois consécutive, avec une note de 4. 4.0 projet de loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture lii quotidien titre ce matin les acteurs doutent de la sincérité de l'État c'est le 8 mai des acteurs selon le confrère les acteurs saluent l'initiative mais restent prudents sur l'effectivité de la mesure. Et pourtant, le Soleil soutient que c'est la grande satisfaction des acteurs du secteur. Une petite parenthèse politique avec l'AS qui nous parle de la reprise du dialogue politique. Veillée d'armes chez Famara Sagnan. Les complaintes des différents acteurs du dialogue national ne sont pas entrées dans l'oreille d'un sourd. Famara Ibrahima Sagnan et son équipe préparent activement la reprise et il n'est pas exclu que les choses redémarrent progressivement dans les 48 venir selon L'AS. Les événements en Côte d'Ivoire n'échappent pas à la presse du jour. Troisième mandat d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire en feu, souligne tribune. Ces manifestations qui ont dégénéré ont fait des morts et beaucoup de dégâts matériels. Les échos décrire qu'un leadership continental à l'épreuve du péril djihadiste et des démons du troisième mandat. En sport, Stade le quotidien du sport titre ce matin sur Barça-Bayern à 19h. Très grand, classique. La bande à Messi défie celle à Lewandowski en quart. Un flic de déclarer mettre Messi sous pression et gagner les duels. Pour Vidal, le la meilleure s'intéresse également au contrat de 4 ans et 42,6 milliards. Manchester City accélère pour Koulibaly. Terminons par sunu lomb avec les prédictions de l'ancien lutteur Mbaye Samb. Gris Bordeaux Balla Gaye 2, le combat du siècle. Mbaye Samb de confier à sunu lomb que si le combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye se déroule comme lors du premier affrontement, on peut assister à un chaos. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.